sëriñ bi nee na ah, Cheikh Mouhamadul Basiru Jomaay Jaxeer Fay mi nee na Cheikh Basiru Jomaay Jaxeer Fay mi bi nga xamee ne nekk na ci tànk tànk yi nee na nee na bi nga xamee ne nekk na ci tànk tànk yi maanaam nekk ci jafe-jafe maanaam nekk ci jafe-jafe ah, Aliou Ndiaye mi nee na Aliou Ndiaye mi ak daam gaas nee na ak daam gaas Mor Baaw ak Antu Ndiaye ak Bas Ndiaye Mor Baaw Antu Ndiaye ak Bas ak mat si lam day jóg nee na ak mat si lam bàjjan day jóg ñoom kenn ku ci ne nee na ñoom kenn ku ci ne da ngaa defoon mbir mi muy sa mbir nee na daa danoo defoon mbir mi muy seen mbir ndax nit ki ndax nit ki ciw melokaanam rek ngay xool nee na ciw melokaanam rek ngay xool taalibe ci taalibe gi ci Basiiru Jomaay Jaxeer Fay nee na gi ci Seex Basiiru Jomaay Jaxeer Fay mii nee ak yar gi ak dal gi ak nek gi nee na ak yar gi ak dal gi ak tek gi <laughs> moom la xamne ne fu sëñ bi la nee boba la xamone ne fu sëñ bi la amna bis am amna bis rawati na alu njay bis rawatina rawati na alu njay mi fi la togo mom moom fi la togo mom mu set sen med ne med ci bir nee mu seet seen ci bir ne fa jàng ab mu ne fa ab ba mu yàgg mu génn ñàqatoo xip nee ba mu yàgg Aliou Ndiaye mii génn ñàqatoo xip akum ñaawaayam ak guddaayam nee ma ma ne ko Aliou lu lu xew nee ma ne ko Aliou mu ne ma ne ko lu xew mu ne ma dem mu ne ma na mu ne ko damaa nekkoon ci ci ci mbiri Basiiru Jomaay Jaxeer Fay nee daa nekkoon ci mbiri Basiiru Jomaay Jaxeer Fay moo tax boobee mu moo tax boobee la xamni li li na dana am nee na la xamni li da dana am nee ba fa serigne mi ne jang am dir du neena neena ba fa serigne mi ne nyak dir ah, ñak genn ñak to xip ñak wi gansiran neena genn ñak to xip ñak wa di gansiran ah, ma tok bu yàgg ci diggante talibé gub serigne teggin sax laaju moom ki waye mbir mi jaaxal ma neena mu tok bu yàgg mbir mi jaaxal ko lol moom sax moo ne ma xanaa li ma def jaaxal na la nee na man moom sax ne ma li ma def jaaxal na la ma ne ko ah waaw sëñ bi mu ne ma ne ma ne ko waaw sëñ bi mu ne ma Basiirou Diomaye Diakhar Faye mii mu ne ma Basiirou Diomaye Diakhar mii moom laa nekkoon ci mbiram mu ne moom laa nekkoon ci mbiram ay mbiram eh, eh, eh, daf maa ma a yitteel nee na Basiirou mbiri Basiirou Diomaye daf ko joma jomaay jaxeer fay neena na jomaar fay ay mbiram daf ma ma sa yitel neena ay mbiram daf ko ma sa yitel ndax talibé la ci kër gi la bok neena mom talibé la ci kër gi la bok ab yaram ko teggi nak dalamit ana ak yaram ak teggi nam ak dalalamit neena na taxna mu jël lepp def ko mi yitem neena na taxna mu jël lepp def ko mi yitem <coughs> yeneen yi ngay deg nit ñi daan ko wax nak yeneen yi nga dégg nit ñi daan ko wax nag yooyu yëpp nag wéq na doom ja waaye ko nee na nag nag wéq na doom ja waaye bañu ko wala wala nag daan na doom ja waaye bañu ko waaye nag walla nag daan na doom ja waaye bañu ko <coughs> yooyu yëpp nee loolu lépp daa tolloog ndab bala nga cee def dara nee na ndab bala nga cee def dara da ko da nga ko da nga ko raxas rek nee na da nga ko raxas rek ah, yàlla sax mi ngi wax ci alxuraan ne nee yàlla mi ngi wax ci alxuraan ne ah sant ak non a waxu xëy na la mooy sant nañu boo sant waxu sorul la nee na hmm? mun a eh, yàlla da ne nee na yàlla da ne eh, ki nga xam ne si nii dana bëgg dara te fekk na loolu du loolu la gën ca moom nee na nit dana bëgg dara te fekk loolu la gënul ca moom. nee na dana bañ dara te mooy la baax ci moom nee na bañ dara te xam ne loolu mooy la baax ci moom booba bu ma wóonewul woon bu ma wóonewul woon eh, mel ni lu ko noonu na booba bu ma mel ni lu ko noonu li ma bëgg def ci moom du ma ko ci mën a def nee li mu bëgg a def ci moom du ko ci mën a def il faut mu nekk premier ennemi am waaw waaw waaw looloo taxoon ma mel nit ennemi nee na looloo taxoon ma mel nit ennemi ennemi waaw noonu la nee ma loo taxoon ma mel nit ennemi waaw kon nag ngeen xam ni bis euh, ni ki tey jii ni ki tey jii ñu ngi ko yëgal madame Diomaye Diakhar fay neen ko ñu ngi ko yëgal madame Diomaye Diakhar fay di ndey di ndey waa réew mi di ndey di ndey waa réew mi waaw ah, ñi ni di di ci jiital it nag ku wal mburu tuddum dëkk nee na ku wal mburu tuddum dëkk léppit Seydina Ousmane Sonko mu sell mii la nee na léppit Seydina Ousmane Sonko mu sell mii la Eh, di nuyu waa Pastef ñëpp wala kon ni ko gone yi wax comme <laughs> ni ko gone yi waxee daa mel ni ex bee gën a aay sax nee daa mel ni ex bi moo indi pouvoir bi moo indi moo leen indi ci pouvoir bi kon nag yi ni ni ni ñun ñëpp ñu ngi feddali seen kóllëre gi yéen te xam ne eh, mosu leen a jóg ci suñuy xel mosu leen a jóg suñu yitte nee ñu ngi feddali seen kóllëre ak waa ex Pastef bii mosunoo jóg ci suñu xel mosunoo jóg suñu wëllëre Eh, am réew nag bu la ko yàlla dénkee am réew nag bu la ko yàlla dénkee ñun suñ xel dal na ci ndax ñun suñ xel dal na ci yéen ndax yéen ku leen gis xam ne du ngeen sàcc nee ku leen gis xam ne du ngeen sàcc du ngeen wuruj du ngeen wuruj du ngeen jublang du ngeen jublang ndax ñu ne ñi ñëpp ngeen boole yamal yi ñëpp ngeen boole yamale ñëpp ngeen boole yamale eh, kon kon kon bis ni ki tey Cheikh Basirou Diomaye Faye mii Cheikh Bassirou Diomaye Diakhar Faye mii ak ma ak madame ak mu taaru bi mais ak madame ah bi yaa ngi bëgg a yaa ngi bëgg a tàgg madame Diakhar ah, ah, ah, la kon nañ ko fi